mouvement bi nag bi ma ko créé yàggul c'est juste après les élections présidentielles euh, lu tax nag ma créer ko ndax dafa am doomu aadama booy dox day am loo xamante ne peut-être da nga koy seetlu te aussi boo gisee lu baax da ngay bëgg vraiment euh, mu nekk sa sa moomeel walla mu bokk ci yow ma gis ne bi ma commencé def politique ba léegi euh, lu mel ni mouvement politique walla lu mel ni parti politique amul ci département de Bounkiling te ñu nekk benn département bu stratégique parce que tey booy dugg Casamance ci département de Bounkiling ngay duggee mooy porte d'entrée de la Casamance te ma seetlu ne aussi ci wàllum réalisation dans tous les 46 départements du Sénégal Bounkiling moo ci gën a ndóol. ci gën a. ndóol ndóol. tu vois. parce que boo xoolee euh, comme li may faral di wax Bounkiling kese ngay dem gis benn commune bu 60 wala 73 villages boo xamante ne tous les villages c'est zéro électrifié. amul benn village bu si am courant. ba léegi ba léegi ba nii may wax ak yow. li aussi ngay dem en tant que département euh, du tribunal départemental du trésor public sànq rek ñu ngi koy wax si wàllum sécurité bi benn poste de police la ñu am benn post de gendarmerie la ñu am tu vois euh, boo demee si wàllum ecole ba nii may wax c'est des abris provisoires looloo fa nekk santé bi doxul amul dara loo xamante ne ni mu ngi dox au niveau de cette au niveau de cette zone dans tous les départements yi nga xamante ne au moins ñu ngi commencé gis développement dañoo am ay leader politique yu taxaw yoo xamante ne ñu ngi xeex seen ak ak seen yelleef pour seen développement wala seen région développée te ñun euh, loolu nekk na suñu handicap euh, ma jugé nécessaire en tant que politique

yenn yenn sensibilisation yëpp après les avant les élections laa ko def mais man maa ne man maa prévoir ne xaar ba élection bi jàll. parce que des fois xam nga nit da ngay bëgg a def dara ñu ñu ñu ñu ñu joxe ci ay mauvaise analyse. Mhm. parce que élection mu ngi ñëw peut-être dama bëgg a génn bennoo. am nañ yaakaar peut-être Diomaye day jàll ma créer mouvement pour soutenir ko pour ñu def may nombal tànk su boobaa man dañuy jéem a. Euh, Euh, sànni suuf si sama idée maanaam si sama objectif lu tax ma bëgg a créer mouvement bi maintenant je me je me ne damay xaar ba mouvement bi euh, ba élection bi jàll ma soog a commencé fësal affaire bi léegi nag bi mu jàllee ci laa delluwaat au niveau de la base ma ma daal di def benn rencontre ma woo département bi yëpp tous les quatorze communes ma woo leen ñu ñëw au niveau de ma commune ma waxtaan ak yéen jox leen sama idée ñu jox ma feu vert ñu ne ma carrément la première fois Euh, ñuy am ces genres de rencontre te am nañ xam am nañ yaakaar ne bu département bi booloo jeunesse bi nekk benn tout le monde leader yëpp nekk benn su boobaa dinañu am bu ñu defee cri de cœur dinañu déglu parce que tey man li may xeex nii ce n'est pas seulement pour ma commune c'est pas pour c'est tout simplement la commune de Bogal mais c'est pour tout le département de Bounkiling mais aussi y compris en particulier le Kabada parce que euh, ma jox la benn parenthèse dans le département de Bounkiling mm -hmm. est subdivisé trois zones am na zone bu ñuy woowee Kabada man foofu laa bokk Kabada Kabada mhm. am na zone bu ñuy woowee Sonkoudou am na zone bu ñuy woowee Fogny léegi bu fekkente ne am na ay yeneen poste de responsabilité bu ñu war a voté comme des postes électifs yoo xamante ne dafa dafa lal département bi yëpp ñëppay toog tu vois bu ñu toogee dañuy xool maintenant le Kabada ban poste la ñuy jël le Fogny ban poste la ñuy jël maintenant le Sonkoudou ban poste la ñuy jël mais boo xoolee en matière électorale bu ñu xoolee ñetti ñetti euh, unité yi Kabada moo gën a ëpp électorat moo tax tey ku fay falu soit député wala conseil départemental mhm. zone boobu noonu moo lay moo lay fal moo lay dimbali pour nga mën a falu te mhm. zone boobu moo gën a li may wax nii as tuut ay réalisation yi euh, état def au niveau du département presque si Sonko dag foo ñu la fa def Kabada yi presque amu fa dara hmm. xanaa peut-être si deuxième mandat le président sortant Macky Sall ci lañ commencé gis yenn dëkk yi di am courant ñii di am ndox ak yeneen piste au niveau de la frontière et cetera et mais lu si gën a bëri parce que boo euh, lu si gën a bëri si beneen zone bi lañ ko def quoi.